Netherlands, Mama to Chuba, the Macabres, Mama to France, Mama to Balia, Mama Yamaki, some form and the better. Look, I see go. Hanadanga, Hanadanga, Taydagan, Filterito, Molerito, Molerito, Father, Saterito, Taydagan, Saterito, Molerito, Molerito, Father, Saterito. Mama, whoop, whoop, whoop. ee soo amee lu la metti booy woma woma soo amee lu la metti booy woma woma ee def de wona la booy woma woma sengi ko rafet na booy woma

ma la bëgg étrangère waaye aussi <laughs> Didier da ngaa doy organisation bu fekkee sécurité ñëw na ñi taxawee côté bi yëpp nañ demee ci ginnaaw podium bi su ko ñu mën a merci beaucoup Didier en merci Kiki TV ana waa Kiki TV Kiki TV Salam koy teg live en direct événement bi dañ koy teg en direct si Kiki TV n'est-ce pas Kiki TV merci beaucoup Salam TV aussi merci beaucoup ok guys on commence le show avec l'international une personne qui nous fait voyager un partout dans le monde il est ici hein oh organisation Rafal gang. Hey, waaw. kon dégg nga jël Pama. ak fii di wootal ba di sis ngeen di génn di bay firil la bàgg li nga tegaat la góor ay jëm sa kaw li ma taxawoon a jóg di nga tëdd mu mën a këm bàgg li nga tëdd comme fii bër du ma si laay bëri ren rek jéggi ni nga doon bi bit bi bit bi taatu booy lay sax laay diriger fii ak fii yow xaaral du xalaat te du bàyyi nga biddew xam-xam buy taata di leeral fir rek jam ni nga dem nday filaal toog kaw ni nga tas seen bilan bile ci paari jaay la baani nekk sa maani toog seen kaw yéen dem day tëj yi faat ci kaw doon li mu doon maa bu róola wala boon état nekk sa zone ey defal gën nga ñooy boom waa li mu doon maa bu róola wala Fall toog seen kanam ay toog seen kanam ñun ñooy toog seen kanam ay toog seen kanam ñun ñooy toog seen kanam ay toog seen kanam ñooy dikk dikk toog seen kanam ak ci lu tey lu bakk lu tey booy taraxu dàll du dëgg di tey sa am ci day dur mais mënoo ñoo laal bu ma jaga duma baale soo bee gën rek def nay bom bari si sa bopp booy karagañ bom yomb na mu tàll mooy dañ doon gëm gëm ma xoolee boo loo bala koy jàpp rek plaqué di sa yaay seen or tagal ko plaqué man ak booy doo fi ñëw pour plaqué mën a duut sa gaal madale nga day balaame comme da ngeen wërë bii ñun dañu tëra dim tëj nañ fii booy yeewoo fee ni nga rey nañ ñi booy xool nañ fee wax nañ fii ñu nga ñoom nañ fee du ñun am ñi booy wool ma nee wala mu doon ma bu róo la war a boon ay tali ko soon ay rafal gën nga ñooy boom waa lii mu doon ma bu róo la war a boon ay tali ko soon ay rafal gën nga ñooy boom ay dox seen kanam toog seen kanam ay toog seen kanam ñun ñooy toog seen kanam ay toog seen kanam ñun ñooy toog seen kanam ay toog seen kanam digg digg toog seen kanam defoo bi dara ni nga lépp la ñu jël ni nga amu leen talaa ni nga xamu leen tur ni nga dëkkee di ñëw di may yoru leen tur ni nga tëjal sa gat moo tëjaat sa gat ni nga defoo bi dara ni nga bëgg a jël lépp wàññi ma gaasal ma dugg sa bopp ni nga jàpp sa MC di tagg di gor ni nga doogu di dee ma suusee di dee lay doon di nga jàpp sa gel di nga ñëpp lay doon di nga firi la jamee nga jënd di glace di nga sàmbi dina doon ba sa biir bàmmeel joboo fi dara di nga léppay leen di nga tegal la góor ngay dund du xam lu mu doon ey maabu ruula wala bon ay daal lañ ko zone ey rafal géeg la ñooy boom waa lii lu mu doon ey maabu ruula wala bon ey ay daal lañ ko zone ey rafal géeg la ñooy boom ñooy boom maa di nga ay toog seen kanam ñun ñooy toog seen kanam ay toog seen kanam wàccuwaay yaa ngi gën a xam. yee gars yi ñu leen di bëgg di leen ziar nañ jox seen wàccuwaay waaye na mais lii mu ngi nees na mu ngi nees barki yàlla barki yàlla mu ngi nees. waaw bala nga jàppale dem yéen ko ñoom yéen a koy jàppale mu am doole ba pare mu ko ak doole nag. ok. si biir kono suñu seex xam nga ne amul ragal tey la ruubi dina rab tëkkuñu di nga xam mel ni gaynde dafa ko may fii say say ko dóor dafa ko juuba dugg suñu di nga yuuxu oo sa kuur saab si puur la du si suur mu fi nekk di laa ba lëf ba ñu yëpp si rab fula ba xala toxique bu nara tëj sa gàtt ah, géej waaye samay kuul ah, géej waaye samay kuul di nga teel ma loolu yaa géej waaye samay kuul ay sa bañoon pour ñu soo cipil sa bët nga xool jobuñ pour fookoon pour muy leer te sa gàtt toog ama xarit ànda doodo benn wàppoo tumboo bu sa xol a ñuul gu mboo du gis ndax maj nit ku tëf sa mbaat si kaw may istuwaar ndax ñëpp may sukkal buy gént gis buy tàmbali na fas yi nee si leeboon bu sa xalaat ñu ëpp taat ñu taata gin dëkku gàtt gi samp ndënd filet balaa may di def play réel baak show جبت القصة إذا صدقنا الحق بمن يا خيري ومن بدي fekki ma dafa ko pusal ni dugg laq ci fekki dara taxul ñu sekki bala doon ci teen bi loo teg ma teg di faram taxal lu fekki mu jëreen di sekki dugg taxul ñu si ma dara taxul ñu seetu ma tàkk tekki di si ma danga si suba jéppi ma damay tàkk di pàkk ma toog naa ko di sakkan na dugg dugg si génn sa dëgg ci fi sa ay deful da ngeen defoon des fantaas si game bi depuis lay teg taxu sama kanam baaraam mooy tardé nga ni nga dama ci gin si gàtta bi ma tas max bi jël kaat ñibbi ndax ma taano duma ci teg tànk vampire ñëpp lay mënoo fis fëla si kaw ma la tëddee si kaw nekk bu nee bu naa mu yo fëla si ndaw uma diwam si kaw ma lay lekk lekk duma fekk fekk duñu benn benn rab fëkki fëkki mel ni doodu soot bi da nga sonn sonn mun a bàyyi jeex bi ma la ooju ooju ba bi bu ko am booba yaa turee ci ni nga doon si géej waxi tam tam ma la may oji bu wax sa gaay ne leen ni nga ma la may oji si sumaari amul xol ma la may oji sama gars yi ñu kontaan ah ñu ngi kontaan mais di wax nag seen artistes yi bu ñu yéegee il faut ngeen jóg encouragé leen tàccu leen mooy loolu noonu. Merci beaucoup. Ahmed, Merci, très cher. Ok, Lillet, sans plus tarder, on enchaîne avec un autre garçon. Il s'appelle Chikili Boy. Chikili. Kick it lit, boy. Anyone this is sad? Yeah, so my guy, it's gonna be cool. Me and damay baar sax dooma technique gang ñee ñooy taatu game bi mën a ay dee rek la ñuy génne ay man la boy bu technique bu dëggee samay baar sax dooma technique waaw ñee ñooy taatu game bi mën a ay dee rek la ñuy génne ay jigili foo jigili ay jigili ay jigili woyama jigili foo jigili ay jigili ay jigili woyama jigili foo jigili ay jigili ay jigili woyama jigili foo ay woyama jigili foo ay jigili da ngeen bëgg a siiw def leen taati neen doo mën te lii du neen def leen taati neen doo leen ay piquet bitch ak seen fiso tip ak siso def leen tekki rek dama cher laalu ma liggéey ay fay leen gaaw a gis non non sama eseet na sama programme eseet bon aussi maa tay booy fit ma bii réew bu réewul li aadama doo dem fenn ay mag yi fenn assis samay clash te dama tur seeni bopp job bu dëgër waaw ni xeer foofu rëdd këpp architecte yaa yéen mënoo leen def leen teg maa la gën a bëgg li nga gën a bëgg jox ko gën a mën a duma fëgg damay tëdd dugg seen keem man la booy bu technique ba dégg samay baasam dooma technique ba aw ñee ñooy taatu kenn bi man ay tey rek la ñuy génn man la booy bu technique ba dégg samay baasam dooma technique ba aw ñee ñooy taatu kenn bi man ay tey rek la ñuy génn jiggly, hey jiggly, hey jiggly, why am I jiggly boy? Jiggly, hey jiggly, hey jiggly, why am I jiggly boy? Hey, why am I jiggly boy? Hey jiggly, hey dama sama sadi am fit, dama masa jël fit ki nga ma lay wër ki lay dara ma dara, dara seen kër dama sama kër état, ya dara ma ci état. tëf waaw dama jàpp tëf ay ay ay waaw ñëw di tas si gem bi sama équipe tàggali Barça waaw toog di ñëw ak Barça moom ma loo ma di yow dama romb bu yàgg te du ma la gerte waaw non non du ma la gerte du ma la nëb waaw lii laa la nii non non. ana góor yàlla yi. daa mel ni waa côté bii ñoo gën a fort côté bii xaaral ma xool côté bi côté bii pare ngeen. pare ngeen. ana góor yàlla yi. waa côté bii ok. un deux trois ana góor yàlla yi. boo boo képp doon rek dina ñëwee côté bii ndax xam naa ne côté moom. <laughs> C'est très important. Ok, on enchaîne, guys, avec l'international Akate Suki. Akate Suki. C'est Tourbimo. <laughs> Akate Suki. C'est bon pour Akate C'est bon. Akate, please, hurry up. Last time is never found again. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Akate. Akate, si c'est bon, signale-toi, s'il vous plaît. Agaté. Ok, on passe. On passe. Ok. Domzo Pikin, l'international. Amen. On va appeler Domzo Pikin. Pour ne pas attendre. Mère, je vais vous dire, je vais vous xam nga rab laa bëgg a rabal ma da ngay def nii rek yow mais xam naa ni def nii quoi mais xoolal nii rek ay woo ma jaay ay wa ceeb ba jaay ay wa géej ba jaay ah yow loolu ngay rab léegi léegi bu doon sa pikir wàccee naa la woo nga doon yëg soo rabee ba pare nag xam naa ne mairie moom dana bëgg xaalis cinquante mille lañ lay may tey doom sa pikir si c'est bon s'il vous plaît sa pikir loolu depuis ba ma commencé si la ma rab bi commencé dab kan moo xam ko raboon loolu non non dégguma dara de xaar leen ba doon sa pikin yéeg ba pare après ma laaj question bi ku ko trouvé ku ko trouvé ba may la 5000 5000 Ameth génneel 5000 dem sa pikin l'international from Yeumbeul from banlieue dem pikin si c'est bon let's go to the show please my man ba chap pikin wala bokk wala poog wala poog wala poog doom sa pikin yee doom sa pikin bi lay bañ a dégg ah eh par la ko dégg. ah waa pikin ana waa pikin ana ngeen atay yi yëngal nday fii rab la ñuy nday def et du ñu tegal ma loolu. def joo. booy doole bi dañuy bañ a teel. waaw. dëgg la ñuy indi. yéen a ngi ko tey ñun dëgg la ñuy indi. Demba rap la ñuy taw. dëgg la ñuy indi. yéen a ngi ko tey ñun dëgg la ñuy indi. Demba rap la ñuy taw. dëgg la ñuy indi. moom la ñuy indi. yéen a ngi ko tey ñun dëgg la ñuy indi. waaw waaw. mais yow dëgg la ñuy indi. moom la ñuy indi. yéen a ngi ko tey ñun dëgg la ñuy indi. maa ngi la dëgg rek ni indi ñoom ni indi yëpp rafet na ko tee la ñuy indi waaw waaw mais la ñuy indi ñoom ni indi yëpp rafet na ko tee ñun dund la ñuy indi maa ngi leen dama rek leen yaa dama gis bàqum gaab bu di rab rek bëggee daan fenk bi ma la may def Sénégal waaw mbaari suñu teg si ma la ñuy teg ay rapport yi dafa clip naan dañuy ket xaalis ci lu ma teel sa sec may mbaar bi su ma neexee du ma laal wecceer dama jëcc si rab te xooluma leen dama nga wax leen ronal leen ak maa yéen parce que ay seen yéen et puis sax man léegi tax man leen sama mbokk man leen indi foto a dégg a dégg booy a a dégg ndëm sa yéen bi la ñuy bañ a dégg ndëm sa yéen bi la ñuy a dégg ndëm sa yéen a a baale bi la ñuy bañ a dégg mooy baale bi la ñuy bañ a dégg mooy baale bi la ñuy bañ a dégg mooy baale bi la ñuy bañ a dégg am dem soo yee bi la ñuy bañ a dégg am dem soo yee bi la ñuy bañ a dégg am dem soo yee bi la ñuy bañ a dégg waaw yee bi la ñuy bañ a dégg dañuy bañ a dégg booy baale bi dañuy bañ a dégg ah jëmi maay seen père këpp kuy rap maa ko gën a yegg eh waa man du ma ñoom duñu man daggal seen dëm si la tànk yi daal yàlla tàllaat doo ko dindi dafa wu ma léegi man damay faaw soxla international inshallah yi toujours pata doo mos a gis man ma toog bam mooy baale bi la ñuy bañ a dégg mooy baale bi la ñuy bañ a dégg mooy baale bi la ñuy bañ a dégg mooy baale bi la ñuy bañ a dégg ñun tam soo yébi la ñuy bañ a dégg ñun tam soo yébi la ñuy bañ a dégg ñun tam soo yébi la ñuy bañ a dégg ñun tam soo yébi la ñuy bañ a dégg mooy baale bi la ñuy bañ a dégg mooy baale bi la ñuy bañ a dégg ñun tam soo yébi la ñuy bañ a dégg ñun tam soo yébi la ñuy bañ a dégg ak yow waaw bu dem eh eh eh DJ let's go bàyyi loolu de non delloo delloo delloo delloo delloo eh dañu fa aw delloo delluwaatal yee yee yee dañu fa wax up you. Power up. Hey, nigga, power up you. Hey, power up. jërëjëf merci liggéey merci merci. wala laa bëgg a dégg xam nga li ma bëgg a dégg taj taj taj s'il vous plaît taj. ba ma leen di kii gis laa gis sama bopp dëgg bi laay. nga jaral ma lu nekk ma lay na si réseau yi wallaahi nga may daaneel ma Messi nga may miir loo SMS yi gën a dugg anytime lu ko faral biir loo yow lépp la bëgg ma fay si yow musuma nay julli ba jot ma xotti te donte yoruma mani ma yàgg ñaan crédit yi te bëgg la bëgg bu amul ñëpp naan dama wéri di fi nga ma toll moom la ñu xamul say xarit ñëw di la nga bàyyi ma pour de raison war nga ma sa jikko pour man dama naa ma perte maison loxo yi yow waxuma dëgg xale bi waxuma ma eh moom waxuma dëgg du ma fen te waxuma dëgg non non non waxuma dëgg xale bi waxuma dëgg eh, taw na ñoo luñu xool yes aha eh. non non non non non <laughs> ba tey dëgg teg sa kanam lu ma def ba waxul du ma mën a xam samay défaut yi yow def nañu cinq ans ama tamal bi si fóot ak ay wax yu neex dama bëri kersa wax ma sa loxo bébé wala dafay jeex du faa sa tappal dafa yóbbu dëgg ca yi dañu waxtaan rek cargo yi bu ñu ram dem eyes, baby eyes, don't think to bind be my eyes. Eyes, baby eyes, look everything be my eyes. Eyes, baby, let's go. Eyes, eyes, baby eyes, mala mala mind be my eyes. Eyes, baby eyes, don't think to bind be my eyes. Eyes, baby eyes, don't think to bind be my eyes. Eyes, baby, script. Yalla moy lenn sa joo ee eh, man day ah, na ma koo beng yaa ma teg la ci kot maa ni nga danga buub ma teg la ci bot dégguma ful lu ma resu ak kot maa ni nga yow ma suur kay toj ay abdoulaye gërëm kat ma la ma la wax ni barbal ma kot yow ma la wat wat lu nekk dong sa ni nga ay feelu jox ice ice baby ice man la man la maa ngi

motherfucker up. G, a motherfucker up. A motherfucker up. Stop. You don't know what I'm gonna get. Métit bi yaa koy wéetoo. Métit bi taw ngay wéetoo. Tàggatoo mos a ñu seetoo seetoo seetoo. Tijjee wuyu xam nga. yaa boole uus amatuñu négocier interpellation yi la négocier tënk nga jóg yaa ci nekk say conseil bi ñi problème dama yaa muy bon dama si pourtant dégage doo bëgg bëgg du mag yow mi naa ba deux ans cela man la crier suma programme c'est MC day dul du battant bu ko mu dëgër bu forcé sa promotion moo la tëggee invité mag a xase la big uus du morom sa papa la jàmm gën fi ay di sooke càgg di dinaa roote dama brand Mini freestyle off. You know do need y'all. Okay. Nigga, I'm the leader, baby, nigga, better to say, God, do my boy. dee i dëgg ku la boot di bëre homie yéen a ko ndam ci xare war ree ku ñuy jam lu njëkk a teew def na bomb effet la sa font moom dee big ouz mooy bomb bu dee rap wala rap kese ñoo di amul pat nga delloo bët bi génne bu sa carrière teel a pat i si naa wàll yaa ne mel na humango Buru viki ya teru parantao Kusa pasi mada Rafalu mara kaza Nalai bagu yagi nara Ini bisa ya sakla pro Aja wudi kasi Play jam Lina lama cemai Tengah dia jata Ya yang ditata Tiga mesu Modari day Ratu piti jora Ini masa Ini pipi Bela fia Sugi raki dalai jam Beri Usul bati syari Yo Dalam bola Asa Cikan bisa Bisa sama téléphone yàgg dafa pare ñoom seen i plan dafa maa ngi nuyu seen fa dafa nga kii su ma leere xale ma buy dugg noo def mu jox la jaare sama biir bii dafay tàkk di ay kii bëri ci kii ci kaw bii yóbbu seen da nga bëgg fii non fii si ma lu diib laay teg bu dee ñax a dogo yàgg la gis yàgg def lu mais benn wél ñu julli fekk wax ma ci koy teg fii juróom ba taat doo gis ku mel ni man maay jëmm di wër ñoom kamoon du ñu xaar jaaxal say bopp sax gan ëllëg nga poñe ma dinaa la ni def la xarit moom jege ma jegalu yàlla jegal ma fa nga ñàkkee nga a gën a muñee doom fi nga amee a gën a mooy doo doom boo ma mën a toogee damay mel ku yor toogee ma gis la toogee sa baay daa tal ba jëf ci seen tànn indi sa yaay jox xarit yi doom doo ko jox tey fexeel ba jëf lu baax ci seen diggante bu ci mas a dox tey nara laax laaxu jaaxaan jaaxaan ci xaaxaan dooma xam xam nara këpp naye bàyyi jalu xal am am lu bari bari boo nelawee fàtte koo boo deewee ñàkk koo alal du gën a rëy jëf di nga def xañ sama bopp lépp ko sànni lu ñaaw a ñaaw na nga ñaan boo mokkalee des sa daara yow doom sa baay daa indi mais ay doxan di doom ko dox fi fexeel sa jëf a dox fi indi sa yaay toqal di doom doog a toqi fexeel ba jëf lu baax ci seen diggante bu ci mës a toqi yee kii raay yow sama doom xareel sa dund ba mala yi dund la gën demin nekkee ci néeg bu lëndëm mooy wan xale fii ngay toog te comme yàlla dafa def mag moo jiitu xale ci àdduna mag mooy tette xale wax ko fii ngay toog def ci moom ay jikko yu baax def ci moom ay jikko yu rafet ndax bu ëllëgee ñuy mën a nekk ay médecin wala avocat ministre tu vois mooy loolu quoi mag mooy tàggat kon yàlla na leen yàlla jàppale yéen ñëpp ñu mën a tàggat suñuy doom dégg merci beaucoup doyen merci beaucoup c'est très important doom am na solo waaye tamit yaay am na solo yaay am na solo de gars yi ah doom am na solo waaye yaay am na solo yaay dinaa ñëwaat léegi léegi ok on enchaîne avec l'international Lam Foss yee Lam Foss eh Lam fos ah booy bi la booy booy bu mën a rab ak kii mais bi tey ñëwul ah Iya na daw. Wow. Ay, matik. Hey, hey, long foot. Huh? Ay. Yeah. yeah. Mawala rap, break a gis. Dinu na ba, may pipigi. Defu ma neex ni putin. Ma jaxase rap, tapit bu rap, du fi rap. Sige nga xool ma zero tiit, boobu ndaw di liggéey. Ma ko ma xasu jaar, ku warul liggéey. li nga dafa diis ne ko man la menuisier du marché je utal siy daaj ah sago day nooyi kerees bàyyi la ndëm nga andi winnu liiru kerees ah, yore defoon amuma kerees bëgg naa ma feme def ci tuuti dekkee am bëgg si sa alal boo ma naree xaaj ma tijji sa ah te danga mer ba deesi te ko ba mu dees kay lekk di deesi ah technique rabatu di technique yore bi tudd rabu di di bëri mais di technique ay rabu roo dee ma laa piis xel bu neex artiste kaay rek ma wan la kaay rek ma wan la kaay rek ma wan la lu rap flow technique yëpp fii la buy jëm kaay rek ma wan la kaay rek ma wan la kaay rek ma wan la lu rap flow technique yëpp fii la buy jëm and nga kaay kaay kaay rek ma wan la kaay kaay kaay rek ma wan la kaay kaay kaay rek ma wan nga dee ay ci bi kaara la ma dëgg a du fa yokk bu mu sëkk jox si tani ma dem suubu law opposition ko aji mel ne est-ce que sànga duroon nga la di wuy dugg na ci bokk bati nam ragi gën koo sa bopp amoo xam-xam war nga xam sa bopp dëgg bi gi ndax nga doon fi kii bëgg di léegi xaaral ma diri la cin dëgg di màcc di cin yokk sama ñeeg ni marqué di cin waaye ana Merci beaucoup. Boy cette fois-ci moom t'as assuré merci. ok guys dañuy delluwaat ci li ñu woon xam nga la ñu ubbee woon. Aziko. du Aziko. non bàyyi naa bés kanam gars yi bëgguñu Aziko du Aziko. ah. seen waa bi laa suufee yéen tamit laajuma leen yéen laajuma yaa ma yónni yow te wóoruma xaar fii ku yeeg daaw ni ginnee bëgg Dakar liggéey yu dara ma gën a liggéey bi sëriñ bi fas dinaa jaamu yàlla ndax deewam di jaan from Bikina from Broad City eh from Humboldt Aziko Gengeng ñu ñëpp ñëwoon démb ñoo ñëwaat tey ñëwaat tey tey dafa am booy dees laa ñëwaat ah. inji ghetto ghetto ma def eru eru ci biir melo musique bi sa mind di dugg sa xol man ni nga doon ci sign même booy dund soxla la boos keesi dal posé ma ko ci xondu bëtt frontière yi imposé bari ballon bëgguma dik ci doolu waral samay sacrifice ku amul bàmmeelu biir doo ko tënk sacrifice maama nee na ma dem ba de recul yéen booy des ci hip hop bi laa na recul wel porte kinti koona Zico, Zico, Zico mën na rap Zico, Zico, Zico, Zico, yow Zico, Zico, Zico mën na rap Zico, Zico, Zico, Zico, yow Zico, Zico, Zico mën na rap Zico, Zico, Zico, Zico, yow Zico, Zico, Zico mën na rap Zico, Zico, from the ghetto, from the hood, from Pekin, from the Senegal, Senegal, let's get it go. loolu rap technique jàpp. yow man ngeen di mujjee gis ne bu ma bëgg di jàll du gën ko tëgul ci règle ñëpp laay na jàpp. succès du tous ñi xamul dara la hip hop di a fay rab gal seen fom fay rangoon sa coono jeex na tey. lafe ñu àgg ko ci samay texte te ma sàgga sanday li du géemu fu lu xeex jurul daaga sante. moom ndey du liggéey doo ko yéene fande sound bi am na battement de cœur maa xol yaa ngi féex. digg ma gis te kaw li karaw gis a digg bopp booy nga neex ba ci kaw fa nga jaar ba ci man ku jaar ba ci man yow ma nga àgg fa nga yow siku siku siku mën na rap siku siku siku siku siku yow siku siku siku mën na rap siku siku siku

réew ba foog ni asamaan bi wàcc naa ko tey ma tuus toj naa wane ki ma doom ndax ko ba kontaan bégal samay noon bëgg a tekkee tax may sama joom ey ni nga dina baax lu ma sa wàcc yoon yow dégg du fenn ñun ñii ñoo fi nekk ey ku bëgg du bañ si su bii jeex yow never give up ala aju amul taay dooma distan jàpp a du ma bàyyi foo ma gis tëb dama bàyyi teg ci ay doo ma gis tëb hip hop gaasal la casa Polois. Même bu doon ay la mbaa. loxo yi ci kaw eh xana danga eh loxo yi ci kaw eh utoo nga yàq eh yo anda daga man xale du matanda daga re wono e man matanda e yow daga re wono avancé avancé avancé avancé mais bu dee lay na sa bëgg naa la mar bëgg naa ma pare Pour me rejeter le Kawule Ojo ni ma la bëggee Katamale bëgga bëgga Ganule bëgga bëgga bëgga de Ojo yaa ma jaarale Esi na la sa sumba wete

amélioration vraiment considérable, il faut considérer considérablement. Tout que le considérateur considéré sera considéré. On vous considère parce que vous êtes magnifique. On vous considère parce que vous avez tout courage. On vous considère parce que vous êtes exceptionnel. On vous considère parce que vous êtes courageux. encore une fois de plus. On le considère parce que vous êtes des jeunes dynamiques. On le considère parce que vous êtes des jeunes indépendants. On vous considère parce que vous êtes joyeux. On vous considère parce que vous êtes généreux. Voilà. qui s'aiment réciproquement. Vous vous aimez réciproquement, raison pour laquelle okay. toute la communauté on réussit à répondre à cet appel. S'il vous plaît, PFDSM, l'international, s'appelle PFD Let's go to the shop, please, today. Let's go. Let's go, Oh, ben ça c'est vraiment beau. Les gars, c'est vraiment beau. Vous êtes hors mais vous êtes magnifique. Vous êtes au cœur des gars. Bien, le. Let's go to the show. waaye def sa bopp joxe lépp pour sa bopp te kooku rek ay jiig tiim jiig tiim gëmal sa bopp miire a nopp ubbi sa bët di xool ngir ma bokkul munoo si des ci na te toog boo ma xamee xamoo sa bopp doona sa bopp lu yomb jot ram nañ la foofu munoo deful ak jom jom la bu am jot juddoo libre di saxaani ko ak param amal milliard ñeewu ñu la fii kuy liggéey la ñuy toog aral pikin jiwe ci biir ba tax di kenn mooy liggéey lu fi waay ne sa bopp joxe lépp pour sa doom ndaxte pauvre rek ay victime victime sonn nañ si lii nii lii nii problème yi ëpp bii nii lii nii lu fi waay ne sa bopp joxe lépp pour sa doom ndaxte pauvre rek ay victime victime nee na yàlla mooy góor ma gëm te gëm sa bopp nee na job mooy fay ma dëkk ci dëkk ci dëkk bi nit dina am xam-xam mais du gëm boppam nit dina xam yaay kan mais du xam boppam lu fi waay def sa bopp bëgg jàmbur bëgg sa mbokk yàlla xam na lépp bàyyi nag sa bopp tax nañ la dégguloo taalif nañ la dégguloo dëgër bopp topp la adduna tënk la seytaane tàccu la digul seelu la def lu bon su baaxoon Sénégal bëri bàkkaar ñu ma jàppe woon gaan les vrai gata yaay adduna néegu leex la bis da ngay ñëw nga génn moo tax ñeew ma fi joxe lépp pour sa doom te boobu rek ay jiit di jiit di. yeah you so guy you so guy. gars est-ce que pare ngeen di show est-ce que pare ngeen di show. parce que moo ngi cool. parce que moo ngi cool les gars. lii yëpp la ñu lool. yow a pas de blème doolay moom it même buy métti dañuy fomm neex yow a pas de blème dala jot le feu rouge dans un signal on a pas de cesse Sidi da des da des Sidi da des da des Sidi da des da des Sidi da des da des Sidi da des da des Sidi da des da des Sidi da des da des Sidi da des da des Sidi da des da des وملاش ناس نستعملها المازال هنا ريتونا رمبا خولا ورمبا يبي تنين هيك رمبا سبزنا تحنا نسان رمبا هو أرضي تلقوني هاتي دون كي يشاتي دون كي يشتابي دون كي نسيلا دون بس كي ياتي فوي يمبلون سمي جوني تاتورو ونتين على بلا يابي كونومي La musique dans nos veines, on faisait que souffrir, maintenant on a réussi, on a réussi, mais nous n'avons pas léché.

Je t'avais mais tu m'as dit c'était possible. Les chemins du corps, toi tu la refusais. Ne te plus de moi, je ne raterai pas la cible. On la cible, je ne raterai pas la cible. Tout ça se réparait, tout ça se réparait. Les fissures dans le cœur, la musique la réparait. Tout ça se réparait, tout ça se réparait. Les fissures dans le cœur, la musique la réparait. si ñoo bokk si ñooñu nga foog. non non non non non. si ñoo foog si ñooñu nga bokk. non non non non non. si ñoo bokk si ñooñu nga foog. non non non non non. si ñoo foog si ñooñu nga bokk. non non non. ça ne se fait pas avec la guerre. Pourquoi défense de la haine Je n'ai rien contre, je sais bien, je sais bien, tout se bien, mais ça veut pas de quoi je deviendrai. La paix. aimé. La musique, c'est la tienne. On se retrouvera, c'est la mienne. Je regarde ce Mercedes sur la Lamborghini Toyota Celui qui a marché à ramper C'est moi qui disais raté Celui qui vivra verra C'est pour ça qu'on se reprendrait Tout ça c'est réparé Tout ça c'est réparé Les fissures dans le cœur La musique l'a réparé ñooñu nga foog. li si ñoo foog li si ñooñu nga bokk. li si ñoo bokk si ñooñu nga foog. li si ñoo foog li si ñooñu nga bokk. non non non. dégg na wuu dégg na waa dégg na wuu dégg na waa. baa ma kuul ba sama plané. baa ma kuul ba sama plané. dégg na kuul awuma gàmmee. dégg na kuul awuma gàmmee. ma foog sama job mi ngi nii daf ko sama góor mi ngi fii daf toog su ma lekkee suuf laa job du ma tàgg di fooy doon dàggale lim daal bàyyi ko wóor bi ñëw ma sali ko xarantu la xarantu sax mais mootu dara ñu wóori ko Thank you. nga pare ngeen di show laa bëgg est-ce que pare ngeen di show gars yi lii laa bëgg dégg. ba ngeen xam li lan mooy mën rab lan mooy mën rab ba ngeen nga xam lii laa bëgg dégg loxo yi gaaw. xanaa réeroo leen dégg bi waa mais góor yàlla yi bàyyi faale ñëpp. gaaw na gaaw We'll go, we'll go, we'll go. Hey, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Thank you. jikko soo mënee doo am naa seen jikko oh, jëf rek wàññi wax ci pro dégaloo samay cër loxo loxo gaay daaw laaj dabot ma laal teg dabot sur teg tarot teg ay fleur et puis wàññi dabot si sur tey fete chaque jour comme tarot xat comme kuyaate teg tey tarot maa gën a wéddi ko sur le baro doon seen messi la waa di ko ñun rek ngeen bañ ay moom lañ doon doomu ay na yow booba at yi kon Dakar du bëri kidnapp seen fëri ko xali seen fëri nañ seen fëri dañ ko dina mal wir bi seen pigi kon dajewaat pigi jël la war a firi boo rek doo fii sa dernière star kon yow yaa giri ay rafu cag ñu fetteloo dara ay xaj ay pigi pigi sul mu gi ala la su ki arbitre sub leen ba neexal mi leen ma daan tiro leen dara mar dom est-ce que bu yéen ko daay yéen doo yëg yéen doo yëg est-ce que mooy taal ko rek yéen doo yëg est-ce que mooy ada ñu ko lay show ana gaay soxor ya ana gaay soxor defar nga Pikine amul ku soxor ma gars yi Pikine amul ku soxor ñun ñëpp a bëggante. pourquoi soxor pourquoi soxor pourquoi soxor pourquoi soxor pourquoi soxor pourquoi soxor Tiktok ngeen saa jàmm Snapchat ngeen saa jàmm Insta ngeen saa jàmm Facebook ngeen saa jàmm et sur le site et boy sor sor sor ma dox cooleem jigéen ñi tolof tolof ma la MC mbër yàbbu booy dër bunul teg si doo rap fii et sur le boy ñoom ñëpp a yam dama tawa ci bit dama ci floor ma bind ci bit danga mer bi la kii ko woo da nga gis sa ni waral gis ay dama fodoo ci rap te dugguma pro rap mala nga ba ci rap ku ma rata ci rap dama dama ci rap di jéggi si rap jéggi si rap dama def ci rap dama def si rap lu ma def ci rap ngay rap tap tap di fan ay jàng di kat ay kat da ngay reebal tas sama sama bu tas sama kaala day dem tas ay kat kat kat ci bii lay gala di ma mel kuy elo ngol elo ngol ey ey yaa ma baaxal lii tey lii tey sama njom dee angay angay si ñoo dina tàng seen gel di ko hunda naa def ne fànk doo doo pour loo attan nga fàtte a jàpp si noonu sa fi si nga ko ak joomi yow ba sonn ci rab ma ko jaral noo taali sa baara di doole di saxal rabu di saxal booy dem sa aal loolu sa bakkan nga yokku na maxaal dara du baara di sànni def maala ma nga sa baram ko saala ma xaram yow ba ma fajal da yokku la naxa wala ma sa soxor ma yàlla sam kàttan dañu fi tege dañu fi tege ñu amul pause ñaani sa pause léegi ay birig di loos tool loxo ci pause fii dafa néegri góor ay pause ñaari si éegri reer si sos bàyyi si def si ngi di pause bu doon seen got jëru ko ñu di loos ak ndox bu bu la teewul ñu ngi la grosé gannaaw bu ma jëm si ko dégg ma ma hey ñi dañ soxla doon yi ñi da nga def ko communiste sagal ma ñëw def kër yi mais laaj amul ko lu muy ñëw suñu nit fay parce que dama am théorie ni nga tëral ñu tëral di ko la xëcc la nawu bi ni nga wala seen kër yi dama feebar si clinique lu may faj seen wéré ni nga defu fi mélodie bëgg a doon suñu malade ni nga ay eh. da nga amee xaju fi dafa garaan ñu xale bi gëm jàpp ni kër yi bari jafe di bëri ñi ñëpp ci jalousie ak ni ko ni nga ay parce que ñu bëgg di kenn ci bëgg di bàyyi rek di dugg di kenn doon di dégg di yor si yore daga di yor loxo di yëkkati ko mu tàbbati saaga di dañu sàkkal sàkkal ñu ko sama

Gaay est-ce que moo ngi cool. Gaay est-ce que moo ngi cool. Gaay est-ce que moo ngi cool. Déggu ma de déggu ma de xaaral nelaw yow la ko. point six, à leur temps absent. On se tait, ou bien je m'avec. Fucking tech, fuck ses commentaires. Hey, fucking tech, fuck ses commentaires. Hey, sa kan sama kan nga doon gën a dof. Suuf, aja leen na fa tal lu ci daaw lu ci ren ku du góor du ko taal booy waxal sa gaay du ma réew di sooy da ngeen gudd di kaw di ma ni taw ku tawul tooy. Hey, am folo bu naaj bëre ëpp leen jàpp su ma neex ma xulee nday air. Bon nar moon saaga mais boole ma tàngaloo. technique pratique mathématique daanaka doone bambali xame ma xuuree tabali ñu saafu rek ma sabali bu jaawale naa ba sabali sa ngeen la ñu jàng rito su li ñëw day dugg comme pinto fis ñëpp ñu bëgg comme pinto ay ay ma teg ma teg gën a sëri gën a sit même benn ci àll booy taxul ma daaw fekk ci gemb di sona di daaw mën ma tiital yaara ma jiital rek ma fete ba ote hey, yeah, give me a sec, yeah, good to set, hey, c'est la fête de ma gang gang, yeah, yeah, c'est la fête de ma gang gang, gang gang, rap, play, rap on the dance and play, go, down, and my nigga fuck fuck play, rap, play, rap on the dance and play, go, down, and my nigga fuck fuck play, take it in this body, it's all your body, your body. bye bye Ini tahu jus dari you bale Hey bye bye Ini tahu jus dari you bale Biar latte Next time tahu di ko wàcce Mbaay xanaa su nàcce Mer bi ñu sama gàcce Xaju ma ni ko mel si kàtte no amu ma fit Tamal Kenn bu tam ni nga ko sañe Maa ngi ful luxe Même soo fàtte Taw di ko banaa di saltel fépp Bos comme droit xaat fadal fépp Ñoom ñoo bisaare ñun ñoo toll fi nar a ñaaw lépp la ñu nar a may képp Hey teew soo see Boo si may dose ma konde ku mu naka rek jëlaale conseil ñu si nekk di sama sama te duñu si dara CM suñu naara di fii sa sara ndax ne naa ko sharap te tus du xeew yee booy dara nag teew saale sa maama di mus bu reew teew lu sakkan di ceebu seew su koro kafe te mën nga meew tëral ay néew ci fan yu néew la ñu foog ay fekk sawi nga jóg loo génn xanaa tous moo fees avant suñu nekkee lañu foog ay fekk ay sala ka toog ñëw kéem reew play reewande dañ koy play gox dem emaa di nga foog fex play reew play reewande dañ koy play gox dem emaa di nga foog fex play teg rek bés bàyyi baale suñu sama ñu teel a yóbbaale ey bàyyi baale suñu sama ñu teel a yóbbaale teg rek bés bàyyi baale suñu sama ñu lépp. benn nga ni def mën lépp ay lépp. am ko gëgul ne laay ne biir li ngeen di café nii laa see gaz ni nga mënoo ma lekk na maa ngi si biir soo ma sa cin dina la toog daa ku mel ni man dana raati man prés biir soxla ko si nekk ba xam ni si nekk bi jënd nga xam ne di géej di biir ba doom bi di kaare si si sa dëkk biir boobu yaa ngi si classe di tracé figure waa rek sa tëf fii am na dem di sëkkal bu jógoo rek indaale jëppeel ñi xamante ne dañoo sëkkal da sa kaw comme kap ennemi comme tap di wane ni om bak dañu kaa contact mais si ñu frère arrêté contact bu contact sama nit comme la ko sa ko sa ban nañ fari ko les

What a wonder, what a worry. yàlla buur mooy may dafa gul jàmb yàqu jot ci leer jot ko fii si leer tëloo jot si dënam ko may ni nga noo def nga gënam yàlla mooy may nag foog ay xërëm mi laa nga bëgg nag bul xet bërëm abar yàlla loo ragal mu gàññe kon joono bu dee xeer moo def mu xaj sama gëm-gëm moo sut li may xool noo def ni nga ma fay bu gàññ foog mi ak ki ñuy ëppale may bu àndut ak moroom ni noo def ni nga mu ànd ak cee jëf ngeen gis daa gën place wax man dama ko tële xale laa bu ñu yar ma yar ko ne ku place yow nag nga sa ko supee la kenn bu la cëlam duñu man la dama ñëme sa diglu rek ak yàlla nekk bu jox ni Cheikh Ahmadou Bamba si toog damay seen ni kaara bàyyi fa la dox naa noo koy ñaanu xaas def wóor door du set dama mu ñeme ba yëm suma bopp man dama nekk store toog lu ko rek leen xaar kenn mënu yëg fii ndax te kaw kaw laa les gens suis fier maaraw ku fi ma woo si guerre ñeme ni corona mënoo ma def ka maaraw ko fi boy demal ko toog dama may caaxaan damay jàngalee bés nga bëgg yow demal tiktok

Sam's on the number one. Big dude out your bed.